daf leen ñaan ngeen rassuré wu dem ñibbi tranquillement nekk à l'écoute xam ne lépp lu ci war a mën a wala lu ci doon xam nañ naka la leen koy doxee ba ngeen jot ko en deux temps trois mouvements lii daal la leen naan ko di leen sant di leen gërëm ñëpp parce que waxal sëñ bi yeewee ko nañ waxal sëñ bi